droit de marcher non mais eh eh dóor. commissaire. il faut assumer assumer. da nga may téye da nga may téye da nga may téye filmé leen filmé leen nag maa ngi nii da nga may téye. eh. non non non dugul waay dugul dugul eh. eh téyel kii waay téyel kii eh. filmé leen eh waay sama mère laa téye de ah ma.

gisoon noo ah ñu ngi jiyee ñu àpp nañ le maire Barthélémy Dias donc ñoo ko gisandoo ah le maire Barthélémy Dias da doon def dox mbokk le commissaire de Jëppal ñëw jàpp ko